ko fa sab tànk doonte kon na ngay dugg àjjana dees na ko raxas faam ko may waxal ma ne ko ndax yaa ngi dégg eh, bu yam rek maytu toog sa kër naan sa ataaya julli man ba moo ci tëdd naa alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin xale yi nañu nañu nañu wàññi mooy yàlla gu bari ñu bàyyi wàññi mooy yàlla gu bari gi nañu sàkku ñaani waajur mhm. nañu dellu ci démb bu ñu bàyyi cosaan cosaan fi maam yi bàyyi bu ko woon gannaaw bu ne bi daala nañ dellu ci yàlla dellu ci yonent bi delluwaat nag ci ñaani waajur ya delluwaat ca la fi maam ya bàyyi woon waaw xam nga ma xam jaaxal aja alima mhm. mooy aja Fatou xale yi bala ñu laa takk sax ni sama jabar a ngi ni mu ngoog de sama jabar a gi kaay sama jabar ah. ca alxayri jubagul ah, nga loolu ay feem la kenn mosu xale yi léegi buñ la bu leen caamas mi bu takkee Kumba Sall bu ñuy yóbbu Kumba Sall mu sëyi. waaw ah. Kumba Sall mooy gide ñi koy yóbbu. waaw naa leen yoon waa ngi nii. lamp douce baa ngi néeg waa ngi kooku daal miin na kooku xam nga miin na yoon bi yàgg naa dem. ma ma miin <laughs> Aliou <laughs> yaay gaaf est-ce que bokk naa ak rab. waaw gaaf. waaw bokkut ak rab. ci mag ñu jëkk ña hmm. bu ñu masaari bëgg nit bëgg koo takk ah ab dërëm dañu lay jëkk a may boole ci puso ak guj. dërëm ak puso guj. dërëm ak puso guj la jëkk a teg sa loxoon ki ngay bëgg. puso day ñaw ak guj dërëm dañ cay boole jox la ko. Hmm. pour la loolu. bu njëkk boo masaa for man de mas na maa for ab duubal sama yaay yónnee ma këriñ ma jënd booba noo ngi isin yónnee dem jëndi këriñ for ab duubal ab duubal de. Hmm. dikk ne yaay. këriñ gaa ngi booba dërëm ak ñetti fitin la këriñ di jaar ma daal ne ko yaay këriñ gaa ngi man ne yaay damaa forub duubal ah waaw góor Demba Yacine ana dërëm bi ma ne ko mu ngi foo ko fore kaay ma ñëw mu ne nag sama nopp bi gis nga ñaari ba baaram bi baaram bi ñu ngi daje ndox maa ngi deret yaa ngi toog fi Seydi Aboubacar mu jiital ma ba fa ma fore dërëm ba ca ginnaaw jàllu këriñ ba nga tegaat ko fa mu ne ma delloo ko fi ma delloo ko fi mu ne ma ndax boo ëllëgee deete nga deete nga for ma ne ko déedéet deete nga for ma ne déedéet musuma for yaa ngi dégg. mosuma mhm. ne nit may ma. at ma ñu ma mayee may bu njëkk dama doon jooy ne ko duma ko laal sama rakk papa la duma ko laal sama papa damay rey. ñu waxoon may may jooy ci biir néeg bi sama tante mu jiyaay dikk na ma looy jooy ma ne ko sama baay Ablaye Ngom damaa may xaalis te ma ko. mu ne maanaam mu ma ne ko mu ngi nii mu ne ma nii da laa may may bu njëkk sa papa da laa bëgg a takk nii la demee may jooy. mosunoo mhm. ñemee for mosunoo ñemee ñaan. tey tey gaaf gaaf gaaf am na lu ko mën a saafara am na gaaf am waaw am lu ko mën a tojal boo nee salaamaaleykum ku góor ka ne la demal may ma ndox nga jël pot ba dem tànqalu boo laalee sa bopp ñu ne kii daa gaaf tey boo laalee sa gémmiñ ñu ne kii day ko lekk yor doo ñàkk loo lekk yaa ngi dégg mhm. nga ne nii say weer ñu ne kii am na njaboot duggal su ko nee nii ñu ne kii mooy ko topp yàlla la ah waaw Alima man man man man fu ñu doon sama sama téléphone baa ngi toj xoolal. téléphone téléphone yi kay man. Eh, eh, eh, dafa am koo xamante ni dafa koo xamante ni. waaw yàlla seede ni ponkul la ci réew mi. Mhm. naa moo ni ma ci message bii ma liir. Mhm. ni mu ndigg li ndigg. tànk buñ bu ne yaa ci man dara yow. da ko waaw. loolu moom xanaa luy métti. ndigg luy métti. moo ca man ak ak tànk yu métti. xam naa ne ndigg lay métti. loolu de mooy feebaru réew mi. tànk yi métti. Ah. waaw nga réew mi di. bu ci yàlla àndee dama na dama na la ñaanal tare Faatiha Fall xëy naa si. teg sa loxo fii métti. nga toog déglu ma bu ma la nee bàyyil bàyyil. ñoom ñoom papis bu ñaa léegi mënatuñoo taxaw fii oh, lu yàgg ndax yu métti. yi métti yëpp la seen loolu yépp am na garab boo xam ne boo ko ci diwee boole ko karuteeg laaj di ko ci diw tàngal ndox mu tàng di ko ci jàpp boo daa toog di julli di nga toog di taxaw di julli ah. loolu damay eh. feebaru réew mi lekk. Euh, ñëpp ñu ngi laaj numéro téléphone bi régie ñu ngi ñuy wax ne euh, temps bi jeex na euh, bu yàgg. en tout cas message yi bari na lool alaaji saala bigee ñu ngi koy ziar moom itam bu baax su suñu nijaay mi ngi ñuy seetaan mm-hmm. ak ki nga xamee ni moo di alaaji caam bu géwél lonaas ñu ngi koy ziar bu baax Mansour Sox la Pikinois ñu ngi lay ziar yow itam bu baax ak sunu benn doom alaaji Moustapha Samb. waaw doomu alaaji Assane ma roqee Samb. waaw waaw alaaji Moustapha nee na mi ngi lay nuyu. ñu ngi koy ziar bu baax a baax émission bi la. ñu ngi koy ziar bu baax nee na papaam de alaaji Assane ma roqee démb la woon anniversaire am. Assane ma roqee. Ah, Assane ma roqee ku ma jàngaan. dëgg la daan ànd ak ñoom sama papa alaaji Mansour Mbaye ak nit ñu baax ñooñu. Mhm. ñu koy ñaanal yàlla moom itam fu mu tëdd yàlla na yàlla yokku leeram. allahumma amiin incha allah yàlla yàggal ko sunu kanam. allahumma amiin dolli ko wér. amiin waay yàggal ko sunu kanam. allahumma amiin incha allah allah ñaanal sama góor gu baax gi nag si Malick yàlla na ko fi yàlla bàyyi. lu mu dund rek si doyut. amiin koy ñaanal jàmm gudd fan. sëñ Babacar si Mansour. wallaahi. nga dëgg waay sëñ Babacar Mansour. Ah. maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yalla may gudd fan. wallaay dëgg yokk leer gudd fanam. moo ko maam sàmm ko. sàmm njabootam lépp lu sant. amiin ko allahumma amiin aar Tiwaawan gépp. amiin waay di yokk nag di dem Tiwaawan eh, Touba. Mhm. ndax nag foofa sama maam fa la ne sa ah, mm-hmm. Cheikh Samba Diarra Mbaye Cheikh Samba Diarra eh. Mbaye Cheikhu Serigne Bamba bi ma di ko ñaanal moom itam Mbàkke yal na ko fi yàlla bàyyi amiin mm-hmm. yal na yàlla yokk wërsëgam gudd fanam amiin sëñ Mountakha Bachir sëñ Mountakha barki dem li mu woote Touba ci suñu xasida yi masha Allah teguñu ci dara euh, réew mi taw ba tooy xel wallaahi di ñaa di ko ñaanal gudd fan ak wér mm-hmm. di ñaanal sama mag yi tëdd fee ci yow fi ci Cambérène yal na yàlla yokk la yaram Baye Ablaye Thiaw lay Thiaw laay di ñaanal waa Cene ba Seck ndax foofa it sama mag yëpp foofa lañ jokk Cene ba Seck. Mhm. ndeysaan waaw di leen ñaanal ñoom ñëpp di leen siyaar. Mhm. di leen baalaq di leen balwaq mhm. di ñaanal góor ga jiitu yal na ko yàlla xare àjjana woyofal suuf ci koom. yal na dajeeg maamam mag yoon. yaay nag ñun sunu kër gi il faut nga beral ñu ñaan nag. kër gii di kër Bougane ah, euh, il faut nga beral ñu ñaan boo xamante ne daal am ñaanu xaas lay doon waaw dina xumb dina neex te dina yokk barke sëñ Fall. gani dina xumb dina neex dina yokk dina yokk barke sëñ Babacar Si. yal na ko yàlla def. allahumma amiin alaaji buwaan gi. Mhm. maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. allahumma amiin. maa ngi koy ñaanal yokkute ko barke. amiin yal na fi jàmm jëkk. amiin jàmm mujj fi. amiin. dara yàlla bu ci seytaane man dara. amiin waay amiin yal na fi yàlla def jàmm saxal fi jàmm. te may leen bëgg waay amiin fekkee ko tal ko. te bu nu ko fekkee yàlla na nu ci man dara. allahumma amiin jaayal Mustapha. amiin incha allah. am nañu mbégte lool sax suñu xol sedd na te xam naa ni euh, téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoom itam seen i xol sedd tey li ñu daan nañu jot ay message waaye tey def ci raw ndax maa ngi wax sànq papa dafa mel dañoo euh, wokk fi xasan euh, jafe-jafe sénégalais yi dafa mel ni moom la ñu laal tey seen tur yàlla def loolu ci ñoom walaay walaay dëgg la dañuy fekk fay ko walaay dëgg la walaay dëgg la moom la ñëpp di seetaan dëgg la macha numéro téléphone am nag moo nekk nii ñi ko doon laaj ñëpp mën nañu ko noté numéro téléphone Adja Fatou Ngom Saltigué mooy 77

77 204 41 37 euh, numéro téléphone Adja Fatou Ngom. sant yi moo nekk est-ce que jarul jarul sa waxaat waxaat ko waay. <laughs> waaw waxaat ko dafa am waay waay lii ba jàmm la waay. 77. 204 41 yaay booy ñun ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm lu ne la ñu daj nag pour mu ñëw ci euh, émission bi ndax moom euh, buggul télé lool fonk ko lool waaye macha allah. defal nañu honneur boobu ak privilège boobu kontaan nañu lool. yaay ma jooju sax bëggul woon mu ñëw borom këram. wallaay dëgg la ma jooju si. wallaay dëgg la bëggul mu ñëw. dëgg la waaye dañoo naxanteeg moom ba mu ñëw. dëgg la ñu ngi koy ñaanal moom ma jooju na ko yàlla dolli gudd fan. amiin yàlla dolli ko wér. amiin dàggal ko sunu kanam. te may la wér incha allah sunu bàyyi la sunu xarit la. wallaay ñaanal nag soxnaam su baax ja jiitu. Mm-hmm. mu yaay xale yi di soxna Fatou Gueye. waaw ko xam di aw bu baax lool. dëgg la uufoon ah, njaboot gi bëgg ñëpp. dëgg la mooy yaay Cheikh Fall. su ma masaa mer ba naa dama gedd dama daan gedd su ma masaa mer bu ñu yekkee añ man ne suur naa barki salaatu fatiya mu ne yuur bool sama wujj de waleet waleet teg ndawal teg fi tegal ma fee man de damaa suur billaahi du lekk. xale yi de waroon nañoo xool suñu jógee léegi wujj xëppante acide la léegi bu ñu jógee mu dugg ca biir ne kaay ma jooja mu weex mii naqari dara yow de li ma gis ci moom doo ko ci gis ma ne ko man damay ñibbi mu ne fooy ñibbi la dugal xob ba. lay Fatou Gueye ma doo ko ci génne. maa ngi koy ñaanal yàlla fa mu tëdd. yal na xippee àjjana yal na dajeeg maanaam asing. waaw Alima Alima Alima dañuy santat yàlla bu baax julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam euh, di ñaan yàlla sunu daje bi yàlla bu mu doon sunu mujj daje. allahumma amiin. Euh, di ñaanal sunu yaay. Mhm. yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam ci barki Serigne Aboubacar Si. allahumma amiin yàlla na la yàlla gën a teg loxo. amiin ci barki yow tamit ndax njariñ nga ci réew mi. dëgg la njariñ nga ci réew mi man tegtal yi nga joxe tay ak wax ju leer ji nga xamante ni moo dugg sama nopp man yéen a ma ko jëjëg sax. waaye yaay nag bari looy communiquer. waaw dañ communiquer dañ mi toll réew mi dañ laa. yàlla xam ne dama mësuma nangu. del del communiqué ñun kay xam nañ liñ ci daj bala ngaa ñëw waaye waaye del del communiqué ndax réew mi dañ laa yitte woon euh, surtout nag jigéen ñi euh, bari na ci ñoo xamante ni euh, tey xam naa bu ñu bu ñu jotee sa numéro duñ ko gëmee wallaay dëgg ah, waaw yàlla seede li ma jot ci message tey sama téléphone musuma ko jot mhm. mais dañ ñaan la yàlla wér ak wér la yàlla ko yàlla def ci barke Seydi Aboubacar di ñaan yàlla suñu daje bi yàlla bu mu doog suñu mujjug daje waaye yow yow sama diggante ak yow xam nga ne altina ak talaata bés doxal ci diggante bi dëgg la eh, dañ ciy jaare gërëm ñoom Aziz mm-hmm. nga xamante ni nii ba nekk ak ñoom dafa yàgg mm-hmm. ni wax dëgg yàlla ba na ko dëgg la mbër mu ne ànd nag ñoo nag moom ba pare nag set civilisé xam bu yëkkatee ay kàddu xam ba la ko civilisé muy Aziz mi toog waaye ni nii kee nga xamante ne nii Abdou ginnaaw yàlla yunti bi père bu xar moo tax ma xamante ak moom mooy sama kilifa di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm mooy a kilifa man mooy sama patron depuis XFM borom AWBC <laughs> alhamdulilah daman waxaab dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye alima di ci bëral nuyoo rek waa Grand Yoff mhm. rawatina nag wax dëgg yàlla monsieur le maire ba Pam Diop Diop mhm. waaye alima tey damay génn damay xotti dem maam bi lool gaa mhm. eh, ñi baayam bi ko jur ak sama baay sama ndey jëkkër bokk ndey ak baay maire ba man ma jóg maire Grand Yoff. ma jóg ma jóg jóg la moom tam. yow da nga fee yow bëgg doon bëggante kii man wu man man damay rangé wu. <laughs> non non non non ma rek may ma wu. dëgg la man damay rangé wu. man man man maa yeesal sama njëggal maa indi sama mbëggeel man maa koy man maa ko yeesal. yow bul bëgg yow bu sa yoon ne. man man ni ma bëgg may la sa sens. ma sama sens. <laughs> ma sama sens. may ko sens. <laughs> Eh, di di gërëm monsieur euh, monsieur le maire. moom ñëpp na yaa séeréer. waaw naa eh, sëtu ma jooja ah, daa tukki. daal dina xarit yi leen ma wóor leen sama maam mu caga. dégg li <laughs> woote téléphone ndax ñëpp la nopp. waaw maam ma naan na nga def ana maam mu góor ma ne mu ngi fi yéen a ngi toog ma ne ko waaw mu ne am nuyul sama xarit bi ne ko jëb ne ko nuyul sama ma ne ko chéri biisu mu ne lu ma leen wax. waaw dégg li <laughs> Alima foofu rek laay tëjee ndax xam naa ne temps bi dana xool eh, di gërëm Ngagne Diop. Ngagne Diop monsieur ma maire Mbabi la xarit la nga xamante ni nii taalibe eh, eh, Serigne Babacar Sy la wax dëgg jogalay maamam waaye waaye dafa am ñeneen ñoo xamante ni dafa bokk di liggéey ak mm-hmm. Alima yàlla seedeen dama faa dem digg ci yow ñu la ma seedal goo xamante ni nii sama xel daa di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko sutura la mu soxla ci réew ma mm. ko xam yàlla na ko yàlla defal alima daal lépp lu mu xewle mbaye ngom sama doom moo fay tax alhamdulilah rabil xam nga lu mu euh, papa ñëwal waxtu yu xoj nañu waaw xam nga Adja Alima ndeysaan macha allah maa ngi koy ñaanal lu mu bëgg yal na ko yàlla def. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ngom. merew ma la jóg euh, xam nga Adja Alima. waaw. yàlla dafa ñu dimbali. Mhm. émission bi. fa tabarakallahu bu dikk rek dàq moroom ma. dëgg la. yàlla dogal tey tabarkalla macha allah. gannaaw bu nu ñaanalee boroom kër gi. Mhm. muy alxaaji Bougane Gueye Dany. bi nga xam ne moo nu may chance. bi nga xam ne mère Fatou Ngom wax na ni. li muy wut ci réew mi. bu ci sonnee. jot ci ma ne démb la jóge police centrale ci convocation buñ ko convoqué woon maire bi nee na bu ci sonnee jot ci papa ñëwal ñu ñaanal ko yàlla tabarkalla macha allah ki chance bi munu may ci këram gii dëgg la yaatal nu fi te sunu dërëm demu fi dëgg la bi mu koy fàggu fekk ñu fi dëgg bi mu koy liggéey fekk ñu fi mhm. waaye mu pare nag bokk ko ñun mhm. as gor nag su fàggoo teraangam yaatal la ca soo goree war nga ko ni jërëjëf. papa maa xam nga ni amul amul bureau ci kër gi. bul ma waxati li. barke Alaaji Malick. amul fi bureau. billaay wallaay.